yàlla wax na ci alquran ni ñiy dundal jàkk yi mooy ña gëm yàlla gëm yowmal qiyaam di taxawal julli joxe azaka ragaluñu kudul yàlla ñu de des na leen mboolee ci ñi nga xamante ne ñoom ñu ñu jubal lañu dundal jàkk ci julli mbooloo dafa bokk ci màndarga lislaam bi gën a mag jullit ñi dëppoon nañu lool dafa bokk ci xeetub topp yàlla ya gën a mag yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne julli mbooloo ëppale na ka julli moom dong lu tolloog ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay daraja julli ci biir mbooloo ci jàkk loolu lu war la ci lu gën a lëng ci borom xam-xam yi lu ñu wax ci bépp jullit boo xamante ne muskàllaf la am na kàttan te mu ngi dégg nodd ci lu dul microphone te dara amul luy baare baat bi pour mu mën a yegg ci moom ci ay yeneeni baat loolu nag lay wane wareef bi ci alquran la ak ci sunna yàlla wax na ci alquran yow yonent bi ci xare na nga jiite ab kuréel ci jurit ñi waaye nu ñuy téye seeni ay ngànnaay ndigal nag dafay ñëw di wane lu war bu nekkee loolu ci jamono tiitaange la kon ci jamono kaaraange mooy li gën a war yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kepp ku dégg nodd te wuyu wut kooku de amul julli du dul ka am ngànt kooku nag julleem wér na waaye faat na ko li di ngëneelub mbooloo mi waaye tamit tàbbi na ci wuuteeb santaaneeb yàlla ci bàyyi bi mu bàyyi mbooloo mi li gën néew ci mbooloo mooy ñaar yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa ne yow Malik ibnu Xuwayr moom ak mbokkam jullikat bu jotee na nodd na ngeen liqaam waaye ka gën a mag ci yéen na jiite doomu adama dana jot lii di payoorub mbooloo bu nekkee fekke na benn rakka ci julli bi loolu tax yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku fekkee benn rakka kooku jot na lii di julli mbooloo mi bu nekkee nag noddkat bi nodd amul kenn kuy naafila gannaaw nodd ngir yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu ñu taxawalee jullikat amatul beneen julli lu dul julli bi nga xamante ne mooy julli bi war bu nekkee nag kay naafile moo jiitu nodd bi bu nekkee mu ngi ci ràkka bu njëkk bi dafay dog julleen bu nekkee nag mu ngi ci ñaareelu ràkka bi moom da koy daldi gaawantu mu ayof mu ngir mu daldi fekkee julli mbooloo mi jullit dañ ko jàppal ngànt ci ñàkk teewee julli mbooloo ci ay mbir yu bëri bokk na ci bu nekkee dafa dafa feebar feebar bu koy sonal ba mun yegg ci mbooloo mi wala bu dafay soxlal boppam ci dem ci wanag wala am na ñam bu mu soxla bu teew wala bokk tiital na boppam wala alalam wala njabootam ñii des na leen jàppal ngànt ci julli mbooloo waaye tamit bu nekkee tiit na ba léegi ñi moo àndal ci tukki dal di dem ci xaar bi muy xaar mbooloo ngir loolu dafay koy soxlaa soxlaal ci biir xolam waaye tamit bu nekkee tamit jamonoy taw wala ngelaw wala neige wala ngelaw bu tar ngànt dana am ci xadisu ibnu omar radiallahu anhuma mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam doon na digal noddkat bi ci jamono guddi eh, bu seddub eh, ngelaw ni digal leen ñu julli seen mbir dal yi